salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk yi yëpp gis ngeen kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko fee ngir doon yeewi mbooloo mi gis ngeen liggéey bi tamit nit ñiy fóote tapp yi am na ci tapp yoo xam ne taalibe yi doon liggéey ñoo ci bëgg barkellu ngir fóote ko seen loxo ngir bëgg cee barkellu waaye mboolem tapp yi nga xam ne mesuré woon nañ ko mu xaj ci machine bi fii lañ koy fóote dafa mel ne nag liggéey bi àgg na foo xam ne benn machine bii nga xam ne waa Touba Veneto ñoo ko jëndoon doyatul liggéey bi war nañoo am machine boo xam ne dañ koy natt dimension 4 mètres nga xam ne day mën a jël jël 4 mètres yoo xam ne tapis bu yu mag yi nekk ci jumaa yëpp dana ko dana ci mën a dugg fóot ko dana mën a fóotandoo tamit euh, lim biñ bëgg bu dee machine bi ndànk-ndànk la koy mën a fóot par ay fan kon loolu dafa mel ne ni ñu defoon li ñu dajoon daloon ci margo bi ci wàllu liggéey bi dalaat nañu ci machine kon machine bi jàmbaar la lool mu ngi liggéey liggéey boo am solo waaye kon ñu ngi lancé tamit ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci bitti ñu fexe ba jaayante liggéeyal sëriñ bi jëndaat beneen machine buy fóot tappi boo xam ne day mën a làng lu mat 4 mètres wala 5 mètres kon daayira bi loolu ci ay yitteem la ñu ngi koy wax nii ci kàddu sëriñ Afia kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu